Thérence Senghor maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay Adja. voilà Thérence Senghor nga nekk membre bu coalition Benno Bokk Yaakaar membre bu conseil économique social et environnemental récemment ñu gis ni euh, juróom-ñetti membre yu conseil économique social environnemental dañoo boycotté woon réunion wu bureau bi euh, lan moo waraloon ñu def jëf jooju jëmale ko ci Idrissa Seck. waaw madame maa ngi lay nuyu di la sant di la gërëm ci interview bi ci euh, li ma interview par rapport à la situation du conseil économique social et environnemental bi nga xam ne institution bu nga am boo am solo la bi nga xam ne mooy joxe c'est benn institution consultative bi nga xam ne consultative bi nga xam ne président daf ko Sénégal dafa soxol Sénégal bu baax a baax a baax a baax pour ay réflexion ay kàngam ñoo fa ne ay kàngam ñi nga xam ne dañuy réfléchir soit ñu saisir leen par rapport à des thématiques ou bien ñoom ñu autosaisir par rapport à des thématiques ou bien président Macky Sall saisir leen par rapport a des thématiques ñu réfléchir xoolaat def ay audition xool jàmbaat joxe ay avis avec des des recommandations jox ko président de la République donc je pense que euh, président Macky Sall moo choisir moo choisir kàngam yooyu pour di par exemple Idrissa pour mo diriger institution bi donc euh, institution bu am solo la bi nga xam ne euh, ci nomenclature kii de Sénégal la bokk Et pour cela, euh, normalement, c'est le président Mokora présidé. Président euh, Idrissa Seck Mokora présidé. Donc, euh, ci ci boobaa xam naa ne euh, bon euh, ouverture dañuy gis Idrissa Seck mu ñëw après mu ubbi session bi par exemple session bi passée Idrissa Seck gis naa ko mu ñëw ubbi session bi après léegi mu clôture balaa clôture normalement réunion de bureau day am. balaa ouvert balaa session session bi sax ouverture réunion les euh, les présidents day am réunion bureau bi day am ainsi de suite donc mais xam nga nit ki aussi da koy jox cër institution aussi da nga koy jox cër amul mbas bi romb na comme mbas bi daf doon def ay ay ay euh, lu mu tudd ay vidéo conférence mais bas bi romb na léegi normalement en tant que euh, président d' institution da nga war a ñëw teew. ah gars yi di lay poser ay questions ngeen liggéey avec les les les gens du bureau mais moom day ñëw rek euh, def télé mu ne non non non nañ continuer télé télétravail continuer télé vidéo vidéo de conférence gars yi ne ko non non non cette fois-ci kay da ngay ñëw comme dara jotul dara jotu la yaa ngi fi Sénégal ah bu njëkk ba dañ la doon accepté nga dem euh, si tu es à l'étranger amul problème mais cette fois-ci yaa ngi fi kay ñëwal ñu ñu liggéey loolu rek la pour nga ñëw nga jox nga jëmal euh, institution bi parce que institution bi aussi. yow ñu la ko pour nga nekk sa kër di di di di def ay liggéey comme ça ah ñun ñii nekk fii ñun dañu jóge suñu kër ñëw fii donc yow fa nga ñëw loolu rek la woon ah. Mhm. non du leneen. du leneen. waaw. gis ni euh, actuellement divorce am na ci diggante Idrissa Seck ak président Macky Sall même bu fekkente ni dañ ko doon laam-laamee euh, waa réew mi di ko bañ wala sax waa APR fi ñu ni nag mbir mi am na yow ban euh, jàngat nga am si départu Idrissa Seck ci coalition Benno Bokk Yaakaar waaw merci bokk madame xam nga xam nga Idrissa Seck xam ngeen ko ñëpp a xam président Macky wax na ko nee ko bu muy ñëw li def ko ne bu ñu wax affaire bu deux mille vingt quatre deux mille vingt quatre daal su eggee su eggee foofu suñu eggee foofu ci jàmm yow da man daal lu ma soxal mooy liggéey Sénégal lu ma la jëlee noonu l'attente la mais à tout le monde ku ñëw rek day ñëw liggéey ku bugg a ñëw donc yow ñoo liggéey deux mille vingt quatre bu ñu ko wax suñu eggee foofu yow yaa xam ndax soit nga continuer ak ñun ou bien nga dem nga demander suffrage sénégalais donc loolu la parce que ñun ñëpp sénégalais xam nañ ko yow tamit ah Macky Sall nee na ko yow xam naa la xam ñoom ñoo doon liggéey ci PDS avec le le président Wade donc loolu bettu ñu bettu ñu bettu ñu bettul président Macky Sall bettul sénégalais mais néanmoins ñun Sénégalais euh, le benn bokk yaakaar continue le travail ah ñun de xamoon nañu ne di benn jour dina dem parce que nit ku nekk da koy xam da koy xam bettuñu ah est-ce que euh, lu ni mel du affaiblir euh, benn bokk yaakaar parce que ñu ngi jëm euh, ci élection présidentielle te ku fa jëm yaakaar naa ni euh, da ngay ut mbooloo au lieu que sa mbooloo di wàññeeku donc est-ce que euh, départ u parti mi ci benn bokk yaakaar du indi ay handicap pour élection bu 2024 bi. voilà madame xam nga même suñu sañoon sénégalais yëpp ñëw benn bokk yaakaar suñu sañoon suñu sañoon ñëpp ñëw benn bokk yaakaar. donc ah. président Macky Sall euh, moom tant la dafa tant la mia tout le monde. Idrissa mënul génne mënul yàq leen mënul yàq leen sénégalais ñooy voté. sénégalais ñooy ñooy ñooy ñooy tànn président Macky Sall moo la ñu élire depuis deux mille dix neuf ba tey de deux mille vingt quatre Sénégalais yi dofuñu xam na lu xew xam nañu lu xew le Sénégalais c'est le plus intelligent du du du du monde xam nañu kan mooy kan mooy Idrissa Seck xam nañu kan mooy Macky Sall Macky Sall moom waxam lu bëriwul mu ngeen di kaay ñu liggéey kaay ñu liggéeyal Sénégal le moment venu Sénégalais ñooy choisir suñu sañoon kenn du dem suñu sañoon ñun ñëpp ñu ñëw ñu liggéey Sénégal parce que les émissions des des restes et les personnes euh, euh, passent ñun xam nañu loolu président xam na loolu waaw donc ñun ñun suñu sañoon ñëpp ñëw Macky Sall suñu sañoon du dem fenn mu ñëw liggéeyal Sénégal ñu continuer lu yàlla yàlla mooy tànn euh, président président yàlla moo koy tànn nit ñu ñoo koy votel donc voilà moom moom benn carton la yore ah ak peut-être euh, ñaar ou ñetti personnes ou bien moom moo xam la ak nitam yi mais sénégalais ñoo ñoo ñoo ñooy choisir sénégalais ñooy choisir incha allah rabbi. Euh, beneen laaj euh, jëm ci ñenn ñi sax jàpp nañ ni benn deal moo am ci diggante président Macky Sall ak Idrissa Seck lan ngay tontu ñooñu. Eh, man de man de xamal ma xamal ma Macky Sall ci dil sincèrement diggante suma diggante ak yàlla. Macky Sall xamul lu bon. Macky Sall xamul lu bon Macky Sall xamul lu dil. Mhm. ay schéma Macky Sall xamul yooyu. ci lu bon xamu ko. Macky Sall est très clair dans les les avec les gens. soo nekk ak moom dañ wax lu wóor suba soo soo leen tasaate mu ne lu ma la waxoon loolu laa lay wax. kon gis nga ni daal dil bi nit ñi di laam amul benn dil je te donne dama leen ne benn jour dama lay wax li nga xam ne. pour wax na ba kan mooy Macky Sall. Mhm. Macky Sall du dil Macky Sall xamul luy dil jarul kenn yaru ko ci dil xamul loolu Macky Sall laa la wax je te balaa mu jot réew mi deux mille onze deux mille dix deux mille onze dañuy amoon benn réunion dama lay wax tey secret yi nga xam ne. Mhm. dañuy nekk réunion ma jël parole. dans le cadre des enseignants du réseau des enseignants ma jël parole ma wax. mais gis nga bu ma waxee wax ne wax noonu. bu ñu paree réunion daf maa oo ci bureau mu ne bu bu defati loolu. parce que parce que parce que ma maître wat suñu papa la. am na li nga xam ne da ngay wóor tuuti sa sa kaddu. bu ko bu ko waati loolu. ça existe le bien. boobu jotagul réew mi. boobu Macky Sall jotagul réew mi. man ma ko doon défendre pour mu jot réew mi. mais ma ne non non non bëggul jot réew mi ci ay ay ay ay wax yu bon. ça j'étais le bien parce que c'était jeune là man dama nekkoon jeune. donc aujourd'hui pour pour ma ne la Macky xamul loolu. d' accord xamul bon xamul bon même je te dis encore une autre beneen anecdote encore mu bu mu jëlee réew mi waa benn bokk yaakaar euh, comment dirais-je les les alliés la ñëw ñu waxtaan ci benn jour këram moo xam naa ne moom il se de ça ba ma ko mais président mais les alliés la dañu sonn rek dañu encombré réew mu ne ma nee nee non non non kenn encombré réew ñu dimbale ñu jël réew mi donc on va gouverner ensemble jusqu'à la preuve du contraire ku bëgg ku dem du man ma dàq kenn voilà voilà des deux mille douze la wax loolu ba tey ba tey yaa ngi mu ngi mu ngi ci loolu. Macky Sall Macky Sall nekkul ci ay semence yu bon yooyu xamul loolu ya kenn yaroo ko yoroo loolu. yow mii xam nga ko sénégalais xam nañ ko. Mhm. Euh, beneen laaj aussi euh, actuellement ñu bëri ñu ngi wax ni bu euh, ministre yi bokk parti réew mi génnee ci gouvernement bi njiitu réew mi mi ngi préparer benn remaniement ministériel. mais mais loolu moom ci prérogative am la. loolu moom mooy chef bi. président la ñu la ñu unir Sénégal yow gis nga Sénégal fu mu jógee ba fii fu mu nekk tey gars yi di koy wax au niveau national international Sénégal lu mu développé wu ku bëgg a dëgg bëgg a dëkk Sénégal pour nga am jàmm pour nga mun a euh, euh, nga féex donc aujourd'hui Sénégal euh, remaniement mais président mooy am prérogative bu xool ndax dafa war a nommer kii ou bien mu mu jënd moom mooy chef d'état donc loolu yëpp ci prérogative am la man daal Euh, jox naa ko cër te xam naa ne Sénégalais jox nañ ko cër xam nañu ne euh, il est là pour le Sénégal pour le développement du Sénégal dina teg foofu ay nit yi nga xam ne ah ñoom la Sénégalais yi doon xaar pour pour développer Sénégal rek parce que loolu moo ko ñor moom Sénégal président lu ko ñor mooy naka la ñuy fexe ba Sénégalais gis ci seen bopp ci ci ci ci ci ci développement waaw loolu rek donc dina choisir le euh, il faudra un bon choix ah par rapport à à à ces gens là. incha allah voilà le euh, remplacement njiitu réew mi mi ngi insister di woote dialogue di woo opposition bi ak société civile bi est-ce que ce n'est pas trop tard si moment bi muy woote dialogue madame la tradition sénégalaise mooy dialogue ñun ñëpp dialogue la ñu la ñu xam loolu la ñu la ñu yaree waxtaan waxtaan ci penc ba président bu pas euh, faire le contraire parce qu'il est sénégalais ñun ñëpp sénégalais la ñu ñuy gërëm aussi les chefs religieux ah ci seen euh, liggéey bu baax bi ñu nekk di def ci Sénégal yi pour réguler le le ce pays là le président Macky Sall ay tànn la même pour wax nit ñi kay lañ ñu waxtaan parce que Sénégal moom mu ko moom moom moom xam na ne Sénégal moomul Sénégal Sénégal ñëpp a ko moom donc il faut que ñun ñëpp ñu ñu man ko liggéey liggéey su jotee nañu liggéey waxtu euh, élection su jotee nañ dem def élection compétir moom président xam na loolu tout le temps la lay def. tey ne kaay leen ñu liggéey Sénégal Sénégal moo ñu ñu moo moo ñu boole kaay leen ñu liggéey Sénégal société civile sont là dans leur rôle leur rôle mais leur délai aussi eh, dañuy far nañu xool nañu wante dëgg du ñu xalaat intérêt réew mi man daal dama leen ñaan dañuy xool intérêt réew mi ñu xool lu gën Sénégal pour ñu defar ko ah ñeneen aussi opposition yi maa ngi leen di ñaan ñu ñëw quand le moment euh, de de s'opposer arrive il faut aller s'opposer mais le moment de construire arrive il faut aller construire moo gën ñu ñëw toog xalaat naka la ñu na naka lañuy ñuy liggéey Sénégal naka la ñuy demee élection ah qu'il y ait consensus forts ñu mun na liggéey Sénégal tradition mooy wataan Sénégal moom nous ne sommes pas des ennemis du ñu ay ennemis sénégalais xamuñu yooyu. Mhm. ah sénégalais ñëpp a baax ñëpp a am éducation yu baax donc aujourd'hui lañu d'accord garder ce legs là de de dialogue bi nga xam ne suñu maam yi loolu la ñu bay ah Macky Euh, il est aujourd'hui le président de la république yàlla moo xam kañ lay dem après mais àll pour yàlla foog mu dem dina dem beneen sénégalais mooy ñëw waaw waxtu am su jotee su su waxtu am su jow su su jeexee yàlla moo xam ah dina dem beneen sénégalais ñëw donc sénégalais di sénégalais day des nit ñi dem seen seen feneen donc àdduna loolu la donc il faudrait que les sénégalais le sachent les les la société civile le sage et, et, et les les les les l'opposition le sache donc ñun ñëpp benn la ñu ay sénégalais la ñu sénégalais président yàgg na tànn la mais ku bëgg a ñëw liggéey Sénégal na ñëw liggéey su fekkee Sénégal moo la ñor parce que président président Macky Sall Sénégal moo ko ñor et dans ces actes qu'il pose xam nañu Sénégal moo ko ñor donc l'essentiel il est en train de faire le le travail yi nga xam ne sénégalais loolu lañ ko voté waaw te loolu il va continuer cela incha allah rabbi voilà dernière question est-ce que d'accord nga yow sa côté pour ñu amnistier euh, Karim Meïssa Wade ak Khalifa Ababacar Sall pour ñu mën a bokk ci élection présidentielle bu 2024 loo si xalaat madame ma madame man duma juriste sincèrement man duma juriste non waxuma juriste nga ba xam yow d'accord nga mais mais dama xam ne benn am sénégalais yëpp président Macky Sall dafay ami amnistier ñu bëre ay l'occasion du 4 avril à l'occasion d'autres d'autres mais pourquoi pas su ko defee moom moo xam ci prérogative la ci prérogative la la bokk moom mooy xool opportunité bi pourquoi il doit le faire parce que aussi nous ne sommes pas dans la jungle ah am na disposition pour euh, amnistier quelqu'un fan ngay jaar fan ngay jaar ainsi de suite donc tout cela euh, dépend <laughs> dépend de <laughs> des dispositions de de la loi ah donc euh, moi je pense que euh, président Macky Sall mooy xool ak euh, avec euh, les techniciens Eh, les gens qui sont là qui qui euh, ñu xool la loi bi lu mu wax ah naka la ñuy mën a amnistier parce la ñu nous sommes pas dans la zone hein, parce que aussi on doit pas aussi quand même se permettre de, de tout il faut quand même respecter les normes républicaines ah, voilà le, le, le, nous dans un pays civilisé puis pays euh, bien structuré voilà man de je pense que président mooy xool avec euh, euh, li nga xam ne loi bi lu mu ko pour mu amnistier et puis loolu ça ça serait une bonne chose parce que ñun ñëpp Sénégalais lañu waaw ku ne ku ne moom bëgg na defar Sénégal euh, mu ñëw waaw amul problème. voilà d'accord Thérence euh, maa ngi lay remercier bu baax a baax ci nangoo tontu bi nga nangoo tontu samay laaj. waaw man dem ci kontaan parce que ku may dafa jar a défendre. oui waaw parce que ñëpp teg nañu seen bët. confier nañu ko réew mi liggéey na ko ba fii guddi xam leen ko xam xamuñu ko ci coow xam nañu xamuñu ko ci ay ay dil xamuñu ko ci ay schéma nekk ci ay politique d'ailleurs la preuve moom ne balaa ñu koy wax yéen ay mandat xaw ma non mandat nee na leen dimbaleen man man man ñu ma réew mi pour ay manda dañ ma jox ma réew mi pour liggéey xaaral le moment venu ma ma wax euh, conseil yoon def liggéeyam loolu la donc euh, man man de je suis très très à l'aise euh, si vous me demandez soo leen ma ci problème Macky Sall daal vraiment yàlla moo ñu ko jox ma yàlla moo jox ko moo ko jox Sénégal pays yëpp les gens les pays là bëgg nañu bëre bëgg nañu am président comme président Macky Sall donc nañu sant yàlla bu baax a baax a baax a baax d'avoir un président comme Macky Sall bi nga xam ne ñu ngi ci jàmm ah ñu ngi les la ñu ngi lekk bi suur ah alpulaar yi ñu ngi lekk bi suur ci jàmm ak sutura ak barke voilà voilà donc euh, ñu def seen va et vient waaw maa macha allah ñëpp a ci jàmm loolu mooy mooy essentiel bi ah euh, Sénégal a ngi développé ñëpp ñëpp Sénégal dem kanam ñëpp nekk benn loolu la ñëpp bugg Sénégal président Macky Sall loolu la bugg donc nañu koy jàppale ci loolu. wasalaam. voilà Thérence Senghor may fàttali ni yow membre nga ci coalition Benno Bokk Yaakaar nekk membre euh, ci conseil économique social et environnemental social et environnemental social et